Madior Gueye. dëkk bii ñu nekk fan la. ci mooy Maka Bragué. Maka fii la accident bi amee. waa ci sortie Maka Bragué bi rek ci la amee quoi boo boo génnee Maka Bragué ay 2 kilomètres rek jëm Louga foofu lay amee. lii dafay faral di am. waa dafay faral di am nag bari na fi lim fuy am lool sax ba bari ki démb rek bi ñuy bëgg a na benn xale buñ fi yanu fii fee ngeen tax gaare oto ba ne ci arrêt bi. waaw tout nag jooytu nañ ko fu nekk gis nga bis yii di jàll vitesse lañ fiy jaare euh, oto yi ndaw yi ñuy wax alu Dakar vitesse lañ fiy jaare te li ci ëpp ñoom alu Dakar yooyu sax ñooy ñooy def jéey yi nga xamante ni moo fi gën a bari euh, soo xoolee fii nga xamante ni mooy moo boo jógee Ngën Saar soo rombee eh, Kër Baara rek li ci des lépp tali xam nga niwatiwul aw xur la mais lu leen neex leen fiy jaare ñun nag jooytu nañu bind nañ ministre dem nañ ci préfet dem nañu sous préfet dem nañu gouverneur fu nekk dem nañ fa di ko jooytu bëgg ngir yàlla ñu defal ñu fi ay doodaan parce que ay doodaan rek moo mën a wàññi lii ndax chauffeur boo xamante ni si yow xale bu ndaw nga. ñu jox la kaar boo xamante ni yaa ngi ci yab juróom-ñaar fukki nit euh, te sir nombre boobu ñi nga xamante ni moom lañ fiy wax di ko xayax mënul fexe ba dañ ci oto yi kon donc liggéeyu euh, takk der yi ñu ci gënoon a mën a dimbali di ko gën a saytu dana baax mais soo xoolee Makabaray Gueye gii moom li ko commencé barale ba ba ngay dem euh, ngumbu ngéwal amul benn doodaan jiyee joo fi dégg foo ko mas dégg ci dig digal bi jéye ju garaaw lay doon euh, mortel rek mortel mortel rek ngay dégg soo xoolee bis bi barki dem démb biñ ci dawee ba àgg fekk nañu ci tàng-tàng bi ñu ni huit morts boobu oto bi jógagul yaa ngi dégg mais si oto bi oto bi commencé jog la koor yi bari ñuy compter ba am ay dix kon xam nga loolu metti na te quand oto bi orel la mi ngi jógee ba Fuuta man déglu naa benn waay démb mu ni ma man oto bi benn place la desoon amul woon sax place nee na ci bidon la si bidon bi si kanam si la toog oto bi boobu nee na fees na dell waa ji li muy daw bari na daw bari goo xamante ni fii yàllaa ko dimbali mais moom mënoon na bokk ci ngi dee démb ñu ngi koy introsé ci euh, mu ni moom ñu ngi wax ak bi sax naan ko chauffeur tegg sa tànk mais booba faalewu leen ab xale bu ndaw la kooku it Eh, suñ ci eh, gouvernement bi mënee dimbali ànd ak takk der yi di contrôler xale yi nga xamante ni ñoo yor oto yi ba xam war nañ koo mën a yor wala waruñu koo mën a yor ndax mag mu bàyyi njaboot yor ay responsabilité am naa yaakaar ne doo def lee affaire bi jéey ji metti na lool ay nit ñoo xamante ni ñi ngi jóge ba seen kër eh, di dem vacances yi ñenn ñi di dem di liggéey lu toll ci ñaar fukki nit ak ñaar wala ñaar fukki ak ñeent tey faatu ci doy na metti nañu ñu ngi leen di ñaan nag yéen ñi nga xamante ni yéenay taskati xebaar yi fu ngeen nu mën a jàllaleel suñu message yi ci diggante Maka Bragué yi euh, Xambala Kër Baara Ngën Saar doo daan yi bu ngeen ñu ci bu ñu ci mënee dimbali dana ci baax lool dana taxit oto bi saa su ko yëgee ni doo daan am na ci diggante bi rek dana xam li may daw dana teggi tànkam li ñu leen di wax ni amul benn benn benn lu ñu leen ci yéen a ngi ci wetu tali bi gis ngeen wetees yi ñu jaare waaw kon loolu yéen tamit ñu ngi leen ci gën a saytu man nag li ma ci xam bari na xanaa damay bàyyi sama nattaangoo yi jox la ci tuuti après man boo bëggee ñu continuer dana wax lu bare bare ci ci ci ci ci ci milieu bi. Ah, man Papa Diaw laa tudd gën naa xam ca Mass Diaw waaw ah, sëñ bi comme su ñu ko sama waaju ji waxee rek noonu rek la demee fii moom wetees yi ñu fiy jaare dafa bari lool. naa ko weesu fi ñu oto yi bari na lool surtout biis yu mag yi nag kon nag li nga xam ne ci moom la ñuy yàgg ñaan daal mooy du ay doo daan ndax boo waxee dañ naan la fii national 2 bi la warul mën a am daan warul am boo jëmee fu mel ne ay barale paal kii noonu gis nañ fa ay ay doo kon ma ragal ne dëkk bi bu màggee ba toll nii mu nga xam ne daanaka taxalu nag Louga war naa mën a am ay doo daan war na fa ma war a mën a am damaa xamul nag ci topp topp dañ la wala kilifa yi ñoo dafa àggul ci kilifa yi waaye lu ci mën a am daal loolu moom war nañu ci dimbali bu baax a baax a baax a baax yi daal moom am na ci solo waaw loolu daal moom lañ doon jooytu at yi yëpp nag waaw parce que fii lu fi am ci accident mun ñu ko wañ moom yi bees yi am nii rek lañu ma mën waaye lu fi am ci accident fi avant rek am na fii benn waaw avant ñuy am na fi benn xale bi mi ngi fii ci biir ba léegi mu ngi noonu léegi nag bëggoon nañu daal kilifa yi gouvernement bi buñ ci mën a jot ñu fexe ba dimbali ci ay doo bu buñ ko amoon daal diggante bi wax dëgg yàlla loolu dana mën a wàññeeku bu baax moom loolu rek mooy mën a eh, indi solution ndax si sart bi bari na lool tey lu ñu si sart moom bari ndax bii fi am barki démb ñu ngi wax ma 16 personnes yoo xam ne dañ ko cay si sart xam nga loolu ëpp loolu nag lu koy indi topp sa bëgg-bëgg rek waaye wax dëgg yàlla loolu moom jaaduwul accident bi metti na metti goo xam ne si wax dëgg yàlla foo metti yam fa la commencé waaw kon daal ñu ngi ñaan ngeen àggaleel ñu fexe ba àggaleel ñu lii état ñu yëg ko ñu mën ñu fexe tegal ay doo daan ci diggante bii parce que dëkk bi léegi dootul dëkk bu ndaw dëkk bu mag la dem na ba taxaw na ak Louga waaw gis nga bi nga ñëwee dañ la wax makabara yi nga xam ne bi ngay jógee foofu ba fii lépp ay kër la ay kii la lépp ci dëkk bi biir Louga la bokk kon léegi waroon na am diggante bi waroon na am ay doo daan yoo xam ne si oto yi dañu wàññeeku ndànk waaye ñun yàgg nañ ko ñaan ba ci sama waa ji yàgg nañ ko wax fu ne waaye bu ñu waxee dañuy wax national 2 waruloo am ay deux daan ndax foofu nangam nangam te dëkk yi ñu kii nii am nañ ko barale ay paal ay faas yi boo demee deux daan yaa ngi foofu comme am na foofu ndax man yaakaar ne war na man am fii loolu daal la amoon jun luñ ciy wax dëgg yàlla daal euh, yeneen luñ ciy wax naan dafa am ay rab bu fi nekk ak yooyu noonu non non loolu du ay rab yooyu dañuy wax rek du affaire ay rab amu fi dara amu fi loolu ay wax la rek gis nga fii ñu gëm yàlla nit ñi ñu gëm yàlla affaire rab amu fi lii am solo mooy nit ñi dañu respecté seen bopp chauffeur yi respecté ñi nga xam ne si ñoom ñooy ay gendarme tamit ñuy fexe ba taxawu ci liggéey boobu di leen di ci dimbali ndax comme bis bi fu mu déparé fi ñuy wax ne Podor la déparé ba agsi fii romb na ay montages ah waa léegi nu mu def ba agsi bi ba fii kooku waroon nañ cee mën a taxaw ma yaakaar ne loolu waroon ñoom waroon nañ cee mën a taxaw ba mu sart si sart bi du war a mën waaye gis nga li ñuy wax ay rab ay lii dara néew fi. amul rab amu fi dara amu fi ne nit ñi respecté seen bopp mooy yoon nit nag xel lañuy wax kenn ku ne am nga xel dégg nga loolu la waaye moom affaire rab affaire jinne ak dara nekk dañuy wax rek waaw loolu moom amul loolu moom. ñan ngeen doon def ay démarches aussi pour ñu defal leen ay doodaan démarches yi ci ñan ngeen dem. ak yan lay lañ leen jox. waaw dem nañ ci préfet. dem nañ ci gouverneur dem nañu gendarmerie nationale fu ci ne waaxu nañu dem nañ même descos bu ndar sax dem nañ ca jooy ko suñuy xalaat Ageroute dem nañ leen dem nañ ca jooy jooy leen suñuy xalaat li nu bind ci ay lettre pour mu dem ci ministre euh, kenn xamul lu mu toll dañu xamul nag président de la république jot na ci wala jotu ci waaye su ci jotul nañ nañ ñu ñaanal yàlla mu jéem cee jot ci lettre yooyu ñu ko ñu ko yónnee pour ñu mën ñu cee jàppale yaar nag danaa la ko xamal kili eh, sëñ bi gis nga dëkk bi moo mag tali bi tali bi moo ko fekk mais dëkk bi moo moo mag parce que dëkk bi fii la masa samp mais bi ñu ñëwee ci ay maam nee nañu tali bi mi ngi jaaroon ci fële ca gannaaw mais bi ko tubaab yi orienté ñoom ñoo ko jaarale fii muy bànneex ci ñun bu baax waaye nag maanaam bakkan yin fii jur moom jur moom dañ koo jëlale moom waxuñu waxuñu waxi jur moom ay xara ki naga ki fas moom euh, at mu liñ ciy rey liñ ñu ciy reyal kenn xamul nu mu toll nit ñi nag moom doo toog mukk doo toog mukk doo doo toog mukk yaari weer yoo fi déggul accident te li ma la wax ni jàpp ko nga yóbbu bu la neexee boo paree nga jël suñuy numéro dégg wala nga jox ñu say numéro saa su accident amee daañ la woo fii dani euh, la la la la cinq ci weer wi passé lañ fi mbëkk benn booy yaa ngi dégg booy bi ah mi ngi woon hôpital bañ ni woon jàllale woon nañ ko cees kon yooyu ñuy wax naan la ay rab yi amul benn rab amul dara chauffeur si kay ñoo war a respecté li ñuy dawal code bi code de la route bi nga xamante ni moom lañ leen jox ñu jëm koo respecté te xam ni yabuñu ay bàyyi ma ay doomi aadama lañ yab te benn doomu aadama rek su faatoo ci sa biir ci sa biir accident euh, euh, loraange la waxantuma laak ay ay ay ay dix ay quinze bërki dem rek dégg nga euh, temps yële rek dégg nga accident wu sakal bi presque quarante quarante yu mooy tuuti la wax te ñu ni ma benn oreelu fajar la woon moo jog mbëkk benn mbaam foofu ray fa lu baree baree bare te loolu yëpp ñàkk ñàkk a wu ci sa ci sa dawalin ndax xale bu xale bu xale yi ñuy jox oto yi yaa ngay wuyub téléphone yaa ngay téye direction bi benn loxo maanaam yow respecté woo ñi nga yab ba xam lu ma te oto lépp loo loo koy dawal saa soo ci naagoo mu nax la ndax ak weñ la rek bis bu la rëccee bala nga dabu mën na la mën na indi jéye kon ci jëmmi boppam moom bu sëfër si respecté woon li ñuy dawal rek am naa yaakaar jàmm dana am su ko defee ñi nga xamante ni ñoom it ñoo nekk ci kaw di ay ministre dégg naa démb ministre bi ñëw na man fekk naa ko fa sax fee ca accident ba euh, euh, toppoon naa ci gannaaw ba muy wax xam naa bu ñu xoolee caméra bi mën nañ maa gis man nañ ma jaa bañ a gis waaye dañoo war ñoo dimbali rek def ay doodaan rek donte mu soree sax bu ñu defee benn doodaan fii def benn doodaan fële def benn doodaan fee tey dëkk bi laaj na ñetti doodaan ndax boo defee benn ci dëkk bi def benn ci entrée bi def benn ca sortie ba boo jéggee benn bala ngaa def benn vitesse ba di fi mbëkk nit da def da def ndànk fii mais wax dëgg yàlla sonn nañ yéen taskati xabaar yi nag ñu leen koy jooy ngeen man koo jàllale jàllaleel nu ko sax la ñuy wax ba kilifa yi yëg ko ndax vraiment bu ngeen xoolee accident wu démb bi ñun la ñaar fukki nit ak nangam dee na ci ñun metti nañu lool ñun ñi bokkoon nañ ci ña doon génnee néew ya di jàppale sapeur di jàppale gendarmerie vraiment euh, ñoom it def nañ seen liggéey bu baax a baax ñu ngi leen di gërëm di leen sant lañu man lu ne def nañ ko ca maanaam jataay baa yàgg rek jataay baa yàgg moo tax ñu bari gën a dee waaye jàpp naa ni daal saafara bi daal gis xool nañ ko xool jàngat nañ ko jàngat ndax fekkee ay nit dong lañu guddeeg bëccëg réunion bu nekk ñu wax ko ak ñoom ñu chauffeur si ñu dem réunion ji ca ca ca ministère yi réunion ca transporteurs yi réunion ca fu mu mën a doon te li ñu leen di wax euh, nangu la dugg seen bopp bi leen rek lañ ñu mën a dimbale def ay doo doodaan rek xanaa ku agsi ci doodaan da nga teggi sa tànk daw ndànk. sama kàddu moom xam naa ni du ci bari lool ndax du ma du ma fi permanent fi laa dëkk waaye damay dem koy ñëw ñii fi dëkk ñoom wax nañ def naan lii ñu waroon a wax yëpp di am soxla demande yi pour doo ak loolu yëpp yàgg na fi. fekk naa ko fi ay ati ati at ñu koy demandé waaye toujours amuñu solution amuñu ci kii daal. accident bi sax certes sori na tuuti Màkka waaye ci ci zone bi la rek comme ni ko gaa yi waxee zone accidentogène la yooyu dafay faral dem li ko li ko motiver nag li ci ëpp mooy talibi aussi dafa sew étroitesse tali bi ba pare gisoo marqué wuñ ko defuñu dara tableau de signalisation yi même ñu ko fi demoon sax chauffeur yi duñ respecté code de la route parce que limitation de vitesse bi mu ngi woon fële cinquante loon à l'heure waaye gis ngeen yéen ñëpp gis ngeen ko li fi oto yi dawal te dëkk bi màgg na lépp a ngi fi mais xam nga li wax rek défaillance humaine moom chauffeur yi aussi na ma yàlla baal ndax yéen ñëpp ñun yëpp xam nañ la xew accident bii boo boo dégg niñ ko décrire ak ni oto bi fu mu daanu da xam ni lii waa ji da doon nelaw loolu njëkk a jàpp kon nag du jinne du rab mbirum doomu aadama la nit euh, gone yi ndaw ñoo yor oto yi léegi manque de responsabilité bi moom dafa feeñ ci ñoom du leen neex la ñuy dawale nu leen neex la la ñuy comporté wa devant les les clients clients yi moom ils sont pas représentés ñooy victime bi toujours ñooy dee rek waaye état bi am na ci responsabilité responsabilité mooy tali yi war nañ ko élargir bañ ko fi def yàgg na je crois que ci li ma dégg 1960 la ko mu 61 61 daaw xam naa ne loola nag depuis ba léegi parce parc automobile bi yokku na ba léegi xat na xataay boo xam ni waroon nañ ko mën a lu bon bon élargir ko bu ñu ko mënul defet ñu def ay limitation de vitesse limitation de vitesse yi chauffeur duñu ko def nañ fa def doo daan comme dañu ay gendarme couché la ñu gendarme yi fi daan monté mënuñu fi tout le temps ñu fi ne léegi comme comme bu bu loolu loolu bu fekkee ni ay ay doo daan am na fi yaakaar naa ni dana dana solution lay doon daal dana na mën a wàññi vitesse bi mën a wàññi accident yi loolu daal comme yéen nag mën ngeen ko jàllale comme ni ñuy wax na ngeen ñu ci dimbali bu ngeen defee seen commentaire mën a wax daal lii suñu tawat ak suñu naqar ba buñ ci mën a am solution ñam ku ko warul dégg ku ko war a dégg dégg ko ku ci war a war a intervenir man ci intervenir loolu rek la jërëjëf ñu ngi leen di ñaan waaw kon yéen tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax ndax ngeen jógee ba ñëw ba fii wax dëgg yàlla kontaan nañ ci lool li lépp yëg-yëg rek la waaw ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax ñu ngeen di liggéey yàlla na jëm kanam waaw liggéey bi yëg nañu leen yëg ngeen ñu bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf waaw jërëjëf